xaw ma egsi na wala egsee bi muy Modou Ndiaye Thiam voilà bu fekkee egsi na bu ñu daanee daaneelee burdu bi moom moo ñuy waxtaanal ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam donte benn 30 minutes la incha allah moom su daanee daaneelee imam day def synthèse waaw su paree ah, dinañ jox oustaz Wade ci lu gàtt rek mu wax ci histoire bu daayira bi incha allah bu daaneelee ñu jox euh, imam délégué de quartier ci dem ba mu wax ci turu dëkk bi waaye wax ñu tamit tuuti ci ki nga xam ne moom la ñuy rendre hommage muy góor gi imam Ablaye Mbaye

Tata. Guru Papa Kodo. بيت جفان نحو أنت يسيح سست كل محبة ولم يكن الوقت غيرك باديا من يمد بك قلبت في الأسلام من سلب ساجد إلى ساجد ما زار مدك راسيا وإن كنت في الأرخام قال tegal ko reer ñun bu guddi bi commencé ba keroog muy tëj ñoo koy def fii kon gan yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo nañu ñoom la ñuy bàyyi ñu dëppee guddi bi ñun ñu topp ci seen ginnaaw incha allah ñoom nag ñooy xool fu ñuy jaar en tout cas fu ñu topp seen ginnaaw jigéen ñi ñu ànd ak teewlu incha allah góor ñi ku mën baax na ku mënul Mawlaaya moom yaakaar naa ñëpp mën nañ ko dafa ñëpp aw. ko ñëpp aw tàgg yonente bi la rek nañ ko àndandoo ñu ñëpp tàgg ko ba mu def jigéen ñi góor ñi lañu wax góor ñi ku mën nga ànd ak ñiy dëgg baax na ku ko mënul ba mu ne aw bi rek baax na incha allah. la salli wa salli daiman abadan ala habibika xayril xalqi نبينا الآمر نائف لا أخذ أبر في خول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحم مولاي يصلي وسلم دائما أبدا على خليدك خير الخلق دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بخبل غير منفسم مولاي صل وسلم دائما أنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على عزيزك خير الخلق كله وكل عين أتى رسل الكرام بها فإنما تسلت من نوره به مولانا دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فاكلمهم كواكبها يدعرنا أنوارها للناس في ظلم مولاي صلي وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم بخلق النبي ينزاده خلق بالحسن مستميلين بالبسر متزين تيب بيعدل تربا دم أعظمه طوبى لمنتسخ منه ومنتسخ مولاي صل وسلم دائما أبدا على أبيك خير كل مولاي صل وسلم دائما أبدا على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 هلا خفيفك غير الخلق أزكى صلاة وأنماء وأسرفاء يؤثر الكون ريانا ذهل الأرض القرآن سمو فتو واي دما تي جوكي dem ba ci suuratul xujuraat jukki ci juróomi yaa ayyuhal lazina amanu fas yéene ko partagé ak yéen bi ci nekk mooy yaa ayyuhal lazina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli wattaqu llaha inna allaha samiun alim ñaareel mooy yaa ayyuhal lazina amanu laa tarfau aswatakum fawqa sawti nnabi wala البعض أن تخبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون نتن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نتن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم جرومي يا أيها الذين آمنوا إمام ويا أيها الذين آمنوا فاتوا بالأوقات بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب أولئك هم الظالمون dama daw jangan tuuti imam xam nga bu yàlla demee bay wax ak jullit ñi pour ñu defar seeni comportement juróomi aaya ñi ñuy wa fi jàng ginnaaw bu ñu ko tasee ku nekk ku nekk ci sa dëkkandoo war nga di jëflanteeg moom jëf ju baax réew mi war nañu am cohésion sociale xam nga bu ñu demee bu ñu demee ba Sénégal Sénégal fii réew mi ñu ni quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ay jullit lañ te jullit ñi mënaguñu jëriñoo alquran problème am na xam nga bi ci njëkk te yàlla wax ñu ko nee ñi ma jiital ci seen kanam bu leen bët bi ci coronavirus ñëwee ñëpp médecin yi lañ doon dëgg problème mu santé bu amee médecin yi la ñuy déglu problème diine bu amee nañu déglu ñi xam ci wàllu diine problème mu pénc bu amee nañu xool ñi seen xel rafet ñu jiital leen mooy bu njëkk mais pour nous donner pas yàlla di ñu rappeler à l'ordre ñu wax leen ñu leen am na ku ma jiital ci seen kanam bu defee ngeen def bu bàyyee ngeen bàyyi yàlla nag fexe na ba gisatuñu sayyiduna Muhammad mais yàlla boole nañu ak ay imam yàlla boole nañu ak alquran mbokk yi إن القرآن هو الميزان تعرف منه ما حويت من الأشواق والسعيد sama maam la ni bu fekkee jullit am na lu mu mën a posé posé ay jikko posé ay jëfam na dem ci balance bu tudd alquran nattu ko fa mbokk yi jikko yi yàqu na te yonent bi sallallahu alayhi wa ne juróom-ñaar yi juróom-ñaar yi bu ñu demee ba seetlu ko ci jamono imam juróom-ñaari jikko yi bu demee ba seetlu ko ci jamono nañu xam ni yàllaa ngi préparé mbugal suñu ashirku billah mbokk yi demee ba yàlla amatul jër ci pénc yàlla amatul monopole ci àdduna nañu xam ni nañu xam ni nañu préparé suñu mbugal ñi ngi masaw waa Marodi suñu mbokku sénégalais yi fa ne yal leen yàlla taxaw jullit yi fa ne te seen bakkan des yal na leen yàlla yërëm waaye yeneen bi nee na yàlla du tege napp lu dul jàmm dafa taañaañal ci bàkk الشرك بالله بني دنا بجمعنا جيغا خامي نيت موي جاكار نوك موروم نيتام نيكو يالا بوكي دك نين كو سي انترنت بي نك ني داي جاكار نوك موروم نيتام نيكو يالا اسكو نيت يالا يا دغل دغل سيو بوروم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء xam nañ ni ñi ñuy wax ni yàlla lañ te du ñoom ñi wax ni yàlla lañ ñoom xam nañ ni du ay yàlla ñun ñi toog yor suñuy téléphone bi seetaan ñu leen di wax loolu ñun xam nañ ni ñooñu du ñu ay yàlla mais xam nga problème bi fan la ne mooy diine ci kenn waxagul fi mu ne nii fi ne nii suñu laaloon tariqa tijaan tijaan ci jóg suñu laaloon tariqa murid murid ci jóg. laajee yi jóg xaadir yi jóg mais bu ñu demee ba laal sensibilité nit ñi sensibilité générale bi mooy l'islam kenn waxatu xam nga lu que yaa ngi wax pour xool lu ñu lay jox ashirku billah ñaareel bi moom mooy ak sixru njabar bu ñu demee ba jamono joo xam ni nit fas ak xànc nga yaakaar ci moroomu nitam demee ba jamono joo xam ni nit ki mi ngi jàpp ni pour mu raw moroomam foog mu fas ko foog mu xànc ko foog mu gas ko foog mu suul ko pour mën a avancer ci kanam. moo tax balaa ngaa wóolu nit xam ko confiance kenn du ko joxee noonu noonu noonu. sayiduna muhammad dafa am waaju tudd labid ibnul asam nabi foo ko fekk ku ongle ak soccu peñe day nekk ci poosam mais dafa jëloon benn nit pour mu koy peñeel boppam labid ibnul asam labid moom la yéefar yi dem corrompre corrompre corruption yàgg na ci dëkk bi corruption yàgg na ci àdduna labid ibnul asam moom la yéefar yi jox mala mi ko lenn lañ soxla mooy jox ñu karaw sayyidina Muhammad xoolal